président yi nga xam ne ñoo jiite organisation professionnelle de la pêche di nuyu coordonnateur CLPA yëpp di nuyu képp ku fi teew di nuyu itam suñu mbokk yi nekk ci ginnaaw CAPS waxuma ko ci kàllaama waaye CAPS di organisation boo xam ne macha allah rafetlu nañ seen taxawaay parce que fi ñu toll nii ñu ngi liggéeyal secteur bi liggéey bu mucc ayib ñu ciy nuyu seen président muy Aliou Thiam di lu taxawaayam. noonu lañu ñu nuyoo bépp kuréel bu fi teew ku lim juum en tout cas jigéen ñi suñu mbokk yi seen teewaayu rafet na rafet rafetlu nañ ko ñu leen di nuyu di bég lool ci li leen fekk. Mhm. parce que mbir mi nag day il ñu laal ci tuuti ci aada bi. ci ah, la kon nag euh, xam naa ni ñenn ñi euh, bég nañu waaye man de sama mbégte moom mënuma koo natt. li ñu fi dajale tey mooy immersion. pot à poulpe yi nga xam ne mu ngi bëgg a doon aada ñu ci rafetlu bu baax taxawaayu CLPA yi eh, nga xam ne tey comprendre nañ mission bi nga xam ne nguur gi en tout cas moo taxoon mu créé leen waaye di rafet lu itam accompagnement bi nga xam ne am nañ ko ci partenaires yi lu mel ne Union européenne ak lu mel ne USAID ñi nga xam ne tey dañ leen jàppale ci liggéey boobu di remercier baax autorité administrative bi mu fekk yëpp ak organisation bi nga xam ne yéen comité d'organisation bi ku gërëm te gërëmul comité d'organisation bi dana des te li ñu indoon mooy immersion bi waaye ñu profiter ci itam pour jébbal euh, juróom fukki moteur yoo xam ne dafa bokk ci politique bi nga xam ne président de la république Macky Sall moo ko moo ko sumb jëmle ko ci secteur man nag sama mbégte mhm. mooy que bi ñu ma dénkee secteur de la pêche ak économie maritime ma xam ne man lii lépp samay mbokk mooy li ñuy wax les gens de la mer ma ñëw fu ma dem ci salaamaaleykum ñu ne ñu président Macky Sall def na ci secteur lu kenn deful ñu ngi koy gërëm ah ma ne kon nag liggéey bi war naa yomb kon nag lu ma ci yokkul bu ma ko wàññi foog naa ni taxawaay boobu dana yomb. kon nag lii firnde la ci mooy programme moteur yi dama leen di wax ne bu budget 2021 génnee ngeen xam ni président fulal na ko parce que dana am montant bu ëpp bi newoon ci budget bi bu ciy nekkaat incha allah kon di ngeen xam ni programme bi lu ñu bëgg a la lu ñu bëgg a yeggali la ci ndigalu président la république noonu la demee wax ngeen ko sànq ci ay gilet de sauvetage dama koy wax souvent pour la may gilet de sauvetage di la ko jox a deux mille cinq cent maanaam presque daf la ko may parce que xam ngeen ni muy jaar mm-hmm. waaw wax ngeen ci moteur yi sànq dégg naa ñu naan moteur buy jar un million quatre-vingt-dix wala un million deux cent quarante waaw bu dee loolu lay jar te président teggil la ci un million foog naa ni loolu it war nañ ko sant di ko gërëm bu baax a baax parce que yombal na liggéey ah wax ngeen ci carburant bi juróom ñetti milliards ak bu ne président dana ko dugal ci subventionné essence bi ngeen di utiliser pour dem géej kon loolu li lu am solo wax neen ci wàllu euh, mbël ba fële ca Ndar la mu doon loo xam ne lépp képp kuy mool jaaxaloon na parce que lañ fa ñàkk ci ay mbokk a jéggi na dayu yàlla may ñu loolu ci autorisation ak ndimbal président la république jàpp naa ni saafara am na parce que marché boobu jox nañ ko benn entreprise boo xam ne entreprise internationale bu ko war a liggéey ci ñetti weer ak genn wàll kon loolu it mën nañ ci am yaakaar kon bu may continuer di lii foog naa ne dana bëre mais nañu sant yàlla kon ci foofu laa rafet rafetlu taxawaayu mareyeur yi maa ngi ciy nuyu président yi fi nekk ku mel na Thierno Mbengue koy nuyu ci taxawaayam ku mel na général Djibi Ndiaye ñu koy nuyu ci taxawaayam bu ma limee nag dinaa jóom waaye maa ngi nuyu euh, ku mel na Jabel ba seen bopp fële ca Yoff euh, waaye ay acteurs yi tam yoo xam ne tey ñoo jiitee CAPS bi ma wax muy Alioune Thiam waaye seen mbokk seen xarit ki nga xam ne mu ngi leen di jàppale yéen a ko wax muy El di armateur fee ca port de Dakar. ay ndaa nag dafa yàgg si département de Mbour depuis deux 2006 ñu liggéey ak japonais yi lañ doon def activité bi mais ren li ci am solo mooy dañu defar fukki junni ay ndaa ak juróom ci ndimbalu Union européenne si protocole bu mu am ak ministère de la pêche ak USAID. ak usine yi nga xam ne ñooy liggéey si pulpe bi ak organisation professionnelle yi lu mel ni CAP lu mel ni GAIPES ak lu mel ni UPAMES tey jii nag ñu tànn Mbour li tax ñu tànn Mbour mooy Mbour dafa am ay doom yu fi dëkk di liggéey ci CLPA bi gëm gestion de la ressource lépp looy def si yeneen dëkk yi boo ñëwee Mbour dañ la koy aaye Mbour moom napp ko sax dàkk moom la ñuy prôné moo tax tey ñu daje fi pour sóob ay ndaam ci loolu aussi ministre bi di profité waale fi di fi joxe ay moteur yoo xam ni ci benn subvention la bu président de la république mayoon pêcheurs yi depuis 2016 tey jii ministre indi na 50 moteurs yoo xam ne da jox ay moolu département bi te day continuer si loolu. ci beneen bi aussi ñuy gërëm ministre bu baax parce que ñun Mbour ñu ngi doog a am chance ministre ñoo présider suñu événement daf daan yebal rek directeur mais bii moo ñoo ko ñaan mu ñëwal ñu ànd ak délégation bi yëpp ñu ñëw toog fi kon il faut ñu sant ministre. gërëm ko ndax activité bi am na solo li ñu ci jublu nag mooy sóob ndaa yi nappam yàlla nga ko a sax dàq si département de Mbour ñi si àndal ñii ñëpp ñoo ma mag coordonnateur CPA bu Joal mu ngi nii bu Sindia mu ngi nii bu Mbour mu ngi nii bu Ndayane mu ngi nii man maa fi gën a nekk xale mais man lañ jox bis bi ñëw seen ginnaaw jox ma kàddu kon dama leen di san ak ñi nga xam ni dañoo bàyyi seen ité yëpp ñëw toog ak waa Mbour waa Mbour man aw ma seen fay yàlla laa leen di bàyyee la leen yàlla fayal ma am na kàddu boo xam ne mënu ma ko bañ a wax mooy ñi ma dëkkal Mbour mu mel ni président Aliou Lakhane mu jiite UNAPAS mu xëy suba mobiliser waa UNAPAS yëpp ñu ñëw fi kuréel gi nag moom man du ma leen gërëm dama leen di ñaanal yàlla parce que ay xale la ñu si bëri man maa leen mag loo fi gis fii mu taxaw rek mat leen waa kuréel gi ñëw fi kon mënu def lu dul ñaanal leen yàlla yàlla dëgëral si taxawaay bàyyi leen fi ba ñu li ñu yéene si nguur yal nañ ko yàlla defal mu am loo xam ne nag dama koy wax parce que démb la xew su ma ko waxul tey day ñëw dal nga xam ne dañ ko def toog fii man loolu mënuma ko ñàkk ba ñu tudd si mbooloo mi pas bari ñu. ñun ñëpp ñu war a ànd bokk day bokk bari mais nag ci kaw loolu yëpp tey mënuñu ñàkk gërëm Aliou Thiam di jiite CAP di wax ne Aliou Thiam dafa taxaw ci secteur ci kanam ñuy xàjjandoo di dóorandoo lu xew ministre bu woote ñu daje autour du table waxtaan trouver solution te dama jàpp ne loolu c'est très important kon loolu dañ koy rafetlu ah, bi ma paree foofu damay gërëm tous les présidents quai de pêche du Sénégal parce que tamit bu gaa yi demee ci quai de pêche yi dañuy démarqué bu ma nekkee président quai de décision eh? la kenn bés Sénégal yëpp fan nga ko nekk président tous les kenn du Sénégal loolu lu rëy la sama secrétaire général muy nii muy Ibrahima Sall mooy président kenn bés Joal moo nekk le secrétaire général national eh, du réseau eh. des quais de pêche kon ñun bu ñu taxawee taxawal nañu quai de pêche Sénégal yëpp mais nag indispensable parce que union européenne su ñëwee Sénégal bëtëm ak làmmiñam ci kee la ko teg kon kee yi ku mel ni Mbour ku mel ni Joal ak yeneen yeneen c'est très important